injustice bu doy waar ñu dund tey ci ay tappale yoo xam ne teguñ ko fenn tey dañu jóg comme dañoo nekk ci campagne ci centrale syndicale yi nga xam ne dañoo war a woote dem nañ fu nekk nag amuñu benn problème waaye bañ duggee Sonacos lañ rencontré problème parce que dañ ñu bàyyi ñu jàll sécurité bi ba ci biir bañ commencé def suñu campagne di waxtaan ak kat yi ñu wooñu ne ñu daaf bi daf leen bëgg a gis directeur administratif mu xamal ñu euh, loolu du mën a maanaam daf ñoo dàq ci gàttal ñu xamal ko ne nag balaa ñoo génn foofu ne loolu duñ ko bàyyi parce que injustice lu dul yoon buñ la ko tegee tu as deux choix soit da koy nangu nga noppi wala nanguwuloo ko nga xeex ko te lii ñuy def nii ci xeex ko la bokk te bu soobee yàlla dinañ fa dellu dinañ def li ñu war a def ah woo nañ ñi ñu war a woo waxtaan nañ ñi ñu war a waxtaan waaye na ko askan wi yégee nii que ñi nga xam ne ñoom lañ jiital ci bërëbu liggéeyukaay yi non seulement dañ fa nekkal euh, ay nit mais bëgg a jël beddi ay centrale loolu amul du yoon te duñu ko nangu